ñu am kooru jàmm dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm. bu ma ñëwee fii ci Touba Sandaga muy centre commercial boo xam ne nii maa ngi ko amoon mébét ba may amoon mébét di ko def c'est en 1995 président Ablaye Wade ñëwoon fi inauguré ko en 2001 kon war nañoo xam ne su leen di wax ne leen. ñun secteur privé li ñu man yéen ñi nga xam ne nii yéen a wax na yéen a yor secteur politique bi yéen ay acteur politique bi ñun li ñu man yéen mënu leen ko ndax bi ma tabaxee lii 24 ans après la ñuy jéem di tabax centre commercial fii kon rawa nañ leen ñaar fukki at ak ñeent ci gis-gis kon tey su doomu daara doomu liggéeykat ñëw di réew mi ñoom dañ ñoo war a abal ñam ñu nag xam ne ñun ñoo leen man ci lan moo gën a mën a dimbale doomu aadama président de la république métier bu noble la bu am responsabilité bu mag waaye liñ la jox ci ay jumtukaay joxuñ ko benn mbindeef ci kaw suuf nga créer sa entreprise wala nga yor sa taabal métier bu suufee la ci gis-gis waaye kenn joxu la benn jumtukaay nga di ko yëkkati di ko yëkkati di ko yëkkati ba mu taxaw kon kooku ku la wax ne mënut yor réew ne ko yow yaa mënut a yar taabal yëkkati ko def ko daal. kon nag ñun commerçant ñun agriculteur ñun pêcheur ñun éleveur. dañoo war a gën a gëm suñ bopp jël réew mi jox liggéeykat yi génne ko ci waxkat yi ndax kat ba ñuy coow ba léegi tojaguñ fenn te ñun toj nañ fépp ba defar ko yàlla nag la mu wax inna laa laa yu xayiru maa bi xawmin hatta yu xayiru maa bi anfusihim su ngeen jógul nag soppi lii du soppi ko ba mukk am nañ occasion pour que am ngeen liggéey kat bu xam kuy liggéey nan la ñuy liggéeyee nan lañ mën a yokkoo nan lañ mën a ragal yàlla ci li ñuy liggéey nan lañ mën a sàmm suñu alal sàmm suñu ngor nan lañ mën a jàppalantee kon nag kenn gënu ñoo yaay ci yor réew mi nañ jóg yor ko préparé ko te wax naa gars yi bu ñu ñamee duñ ñu bàyyi de ndax xam nañ ni ñoo leen man jërë ngeen